Ousseyn nuyu naa. Ousseyn fay naa sant yàlla ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn baraag waa Boune waa Kër Massar waa Albaña waa Montagne waa Mbogos ak waa Kër Massar cité Pilitance waa Ñàgg waa Ñaxorop xama ak waa Daara Cubu ak waa Tivaouane Pël gaa daal maa leen di béggee. te la ma woonoon sa teewaay ci stade bi ñu gis na nga ñëw toog concentré wu di waa waaw dara li waraloon sama teewaay mooy suñu benn grand boy Diop mu tette ñu ci làmb def ci ñun lu bëree bari ci làmb vraiment amoon combat tey moo taxoon xam nga ma ne lépp lu ma jàpp ne ma koy bàyyi ñëw mais mooy loolu noonu quoi. mais booba ak léegi. kenn gisul général Malika lutte avec frappe gaa nag yaa ngi waaj lutte simple bi day wane say preuve ba tey mais lutte avec frappe lan ngay xaar. waaw man xaaruma dara maa ngi fi rek ak lamb quoi vraiment maa ngi fi ak sama staff ndax ku ne xam na ne gars yi bëgg nañ suma lamb mais yàlla dogalagul ma am adversaire bu ma war a bëreel quoi mais maa ngi ci sumay entraînement maa ngi ci lu ma war tey bu ma amoon combat tey tey tey suba damay bëre bu sooba yàlla. mais général ak te chaque jour ñu ngi fi pour làmb amaana tey buñ toogee bëréwuñ gën a luñu mais nag nu ñuy def boo dem di forcer kenn naan ko kaa ñu bëri far force dangay def li la war rek nekk sa bopp lu jot rek yomb ko mais est ce que nekkul ñu nga yóotu ñoo xaw a sori tuuti ci yow nangu ñoo bëri ak yow tamit nag général. non non man yóotuma kenn ku sori ci man samay morom rek a fi nekk te gars yi gënuñu maa këy gënuñu maa seer kase gënuñu maa xew comprendre nga lenn rek fi nekk ma ci lu ma jugee maa ngi wàcc suma bopp mais nañ ma jox samay ak lamb yi nga xamante ne moo jaadu. mais ñoo ñooy seen morom ci làmb général. bëri nañ ñoom doomu dàng nañ ñëw ñu bëree ñu bàyyi seen yooyu ñuy def gars yi ñoo ñooy sumay adversaire nañ ñëw ñu bëree. yow ngaa dugg ci doomu dàng. waaw li may ragal ci doomu dàng day dara ah. man ñooñu laa teg sama bënde barki yàlla ak ñoom Malick Niang gars yooyu ñoom Tapha Tine sa diggante ak sa sax neex ko doomu dàng. waaw maa ngi fi daal pour làmb. déggoo ma maa ngi fi ak ku mu mënti rek man pare naa pour làmb ko yee mais nag amateur na mu noonu la de. billaahi man xam naa loolu ndax saa su ñu ngi may ma laaj sama tolluwaay te xam nga amaana mooy loolu noonu mais maa ngi bopp luñ ma namm benn rek li ma leen nama ko raw barki alxuraan te Maar fii man xam naa damaa namm. yee keroog de sa liggéey fi sa baalu yëngal nga ko. waaw noonu la demee bii di sax mooy daax ndax gars yi barki tey lañ gën a mobiliser tey lañ gën a jàpp tey lañ gën a taxawaat te bu ma ñëwaatee fii wala arène nationale fu mu munti doon ak li xew ci réew mi naka nga ko gisee. non mu toll yéeme rek xam nga ndax amaana boo xoolee fi réew mi toll moom ku ci nekk tey ji yaa ngi am njàqare ci sa bopp wala ci sa famille ndax nit ñi kenn fireetul ndax ni mu demee di wax gars yi nañ gën a delloosiwaat xel yi delloosiwaat xol yi te xam ne àdduna amul solo tey ji bu la ñàkk dugal ci nga def naka su dul noonu man mënu maa gëm lenn man mënu maa gëm tey ji fi réew mi toll yaa ngi dégg mënu maa gëm tey mi toll donte métti na donte liggéey amul mais tey ji ñàkk liggéey warulaa tax ngay def naka sudul noonu mais man damaa jàpp ni alalu jàmbur ki koy jël boo demee ba jàpp ni yaa gën a bëgg nit ki alalam rek yaa ngi ci erreur te boo xoolee moor yi am yu bëri ay affaire dak agressé ay détails ak yu kenn xamul te man damaa jàpp ndaw ñi tey jii leen rek lañ manqué mooy ku leen sensibiliser woo leen di wax ak ñëw xamal leen ni lii lii du àdduna ndax tey jii kenn mosoo fee gis ku ne kii sàcc ci la tabaxee kër wala sàcc ci la tabaxee immeuble amul fenn kon loolu amul chance nañ gën a delloosiwaat suñu xel te xam ne ñun ndaw yi ñooy raw yi yori réew mi ëllëg ay sàcc ak ay yooyu amul chance xam nga tey jii man dama jàpp ne tey jii nii loolu yëpp ci manque communication la rek moo tax mu demee nii mais gëm naa ne ndaw yi buñ di wax ak ñoom rek yii yëpp amaana dina fi gëj quoi yee kontaan naa ci yow. jaajëf Ousseyn di bëgg ci yow di bëggee sama ami yi nekk si diaspora yi ak sama gaay ma àndal stade ñoom Papa xam ñoom Pa Madar borom Kër Massar ak ñoom Nomba xam ak sama gaay ak sama gaay nekk Europe di ma bëggee di ma siyaar ñoom Modou Kane ñoom Boson sama gaay yëpp daal maa ngi leen di bëggee di leen siyaar. lan ngay wax lan ngay na combat nag. armée mu ngi ci boppam ragalul loolu. mbay guy gi la de mbay guy gi la jël. armée daa ragal lool armée amul problème boobu noonu mu ngi ci boppam di liggéey yàlla na ko yàlla lafal cat ndax armée bu amee wér rek am jàmm ñëw ci làmb amul lu ma koy tiital di ko ñaanal ndam lu gën ci moom ndax soxla nañ ko quoi. kontaan naa ci yow bu baax. Ousseyn bég naa ci yow. bilaay damaa liw di yaaye. damaa liw damaa liw di yaaye. damaa liw loolu lan moo ci dem. waaye saa yu dem ci géej gu bëri rek ñaan yàlla daan trop pour deux ñu yëmbal ak samay rek ak samay xarit moom nag nee na moom fi mu toll day ñëw loolu kese moo fi andi. non instant maa ko doon moom lu mu nëbb rek nëbb ko ndax instant maa ko doon nekk si yoon te dañ ma yaakaar mbaru dëkk laa su ma jógee benn baraag génn ànd ak ñoom Baye Sall ñoom Diop ñoom Bouba xam nga vraiment ñu mbalu si mbalu si bu solo tey moom ba tey moom tax ma bëgg a bëri bëri te si kàttan yàlla naa ko daan tey jëlum sëriñ mais ngay dem ci digg géew bi du lox ba est ce que baax na ci yow non ma eh, damaa yëngu rek comme ça dama sotti li ma taxaw benn place lii rek mais su ma nee bëri rek damay tàng waaw combat bi de xeex la laaj wala bëri non man moom xam naa ne man moom sama bitir xeex la moom pour bëri moom faaw xeex ak moom ndax donte poids lourd la pour mën a xeex ak pour moom faaw xeex ak moom maa bëgg a xeex xeex bañ xeex xeex bëgg a xeex xeex bañ xeex xeex moo fi sës ah. incha allah rek waaw ñaan daal yàlla ma mën dal sëriñ waaw Boy Diop trompeur. arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. arbitre baa ngi laaj ay jugeem laaj na trompeur laaj na Boy Diop. trompeur dagg na ànc ba. lewaatoo bi soriyaatoo na ay trompeur. trompeur Boy Diop. trompeur am na lu muy tari. trompeur Boy Diop. ñoo ngi xoolante. Boy Diop. Boy Diop trompeur. ñoo ngi lewato. lewato bi bar na. Boy Diop Boy Diop cokaas na léegi trompeur nga xool trompeur mbokk yi moo ngem bi féete à gauche Boy Diop ngem boo ngemul xonk bi féete à droite Boy Diop trompeur mu neex la ñu dagg bi Boy Diop daa mel ni ku bëgg a dem waaye bu demee la fay fekk trompeur Boy Diop trompeur ka daa bëgg a trompé Boy Diop waaye Boy Diop est-ce nangu trompeur trompé ko Boy Diop a nga dox ci kawam trompeur na ko Boy Diop trompeur Boy Diop xool Boy Diop mag la laay lay la laa bëre mag lay bëre day bàyyeeg Boy Diop lamb ja Boy Diop trompeur Ndiéguène doole door na léegi jël na ko Boy Diop jël na trompeur da koo seen. Boy Diop jàpp na trompeur raaj ci ay tànkam lu mu nar lu mu ko a def trompeur ngay door nee na ma bëgg xeex xeex bañ xeex xeex Boy Diop trompeur. trompeur Boy Diop Boy Diop trompeur eh lu mu ko bëgg a def da koy daan waaw waaw Boy Diop daan na ko Boy Diop daan na trompeur oh xale la vite fait bien fait doole yamul daan na ko Boy Diop daan na ko